أعوذ بالله السميع العليم من إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب إليك وجهت الثناء والشكر والحمد والرضا معا والذكرى لك بلا شكاية شكوري يا خير هاد نافع شكوري صليت بالتسليم عني سرمدا على النبي والرسول أحمد غافر ليغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما بوكي جلدي بوكي تالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيرين بنيانا من لين دي نيو نيو di رفت nuyoo سال te gën a matale diggante jullit ak moroomam kàddu yi mu nuy yëkkatiloo nag kàddu yi fedd li rekk la ndax dara génnu ci li fi jaaroon démb ci ay kàddu ak li fi jaar tey ci ay kàddu kon mu doon lu mel ne ab tënkub tàggoo nee na kon mi ngi leen di xamal mbegte mu rëy mi mu am ci seen teewaay ci bésub tay bii muy teewaay bu rafet bu ànd ak yéene ju sell yoo xam ne dara lalu ko lu dul yàllay kese ndax ci yàlla la leen woo ak lislaam ak bokk ngeen wuyu si ko nu kawe njortam mi ngi leen ciy sant bu baax tey ñaan sun borom mu fay leen ci lu kawe seen njort bokk yi sëriñ bi nee na dina am solo lool ba àgg ci mënta ñàkk ci jataayu lislaam bu mel nii ñu ciy fàttalante ak a ñaaxante ak a soññante ci li ñu sun borom digal ak lim nu tere wa dhakkir fa inna dhikra tanfaul muminin te nit ki yàlla da ko mooñaale fàtte sàkk seytaane dooleel ko lool mu dim noonam te seytaane moom yi du sonn du tàyyi du yokkat te du xaddi kon mënta ñàkk waxtu wu ne ñuy delloo ci xel yi di leen nàmmat bu ñu ko deful di nga gis kuy xuus cib sofaan ba lang ca ngir fàtte bu ñu ko deful di nga gis ku sax ci lu dul noona ngir ñàkk xam te xàq ju rëy la ci ki la war a xamal te xamalu la ki la war a yee te yeewu la ki la war a fàttali te fàttaliwu la sëriñ bi nee na kon mi ngi fàttali boppam njëkk te di leen fàttali yéen tamit ne في الدنيا دردن في اندول لودو جامو يالله سبحانه وتعالى لنن لون في نك لودو لولو نو يتارد سون بوك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جامو يالله رك تخ يالله ساكنو فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور بولين ادنا ور موك اك يي نورو يرفتام اك يي بانيخام بولين ادنا فاد بي موك ak i ndëgg sërëxam ba ngeen fàtte yàlla ak i ndigalam mbokk mi yaa ngi topp àdduna di daw te lu saw xel rëy rëy doo ko jot waxtu wu ne yaa ngi doñ doñi di wut te loo am di bëgg loo ca dolli te lu mën a doon mu bari wala mu néew def na la laaj noo ko amee ak foo ko dugal te loo bari le bari le ci biir suuf ngay mujj àdduna woon la ginnaaw dara du la topp loo kawe kawe dara ci ci àdduna ci bir suuf ngay mujj ñëpp di dox sa kaw aduna gàtt na lool ta lu fi nekk day jeex kenn ku ne amna àpp bu dul tuxu te du ko jéggi mukk ida jaa ajaluhum la yastakhiruna saatan wa la yastaqdimun motax sayyidina ali karama allahu wajhahu nee na almawt laa walidan yabqa wala walada hada sabilu ila an la tara axada kaana annabiyu ولم يخلد لأمته لو خلد الله خلقا قبله خلدا الموت فينا سهام غير خاطئة من فاته اليوم سهم لم يفته غدا نينا دي دبي دوم دبي واجو نيب لي يوب بن بن با كين دوتو ديس سي كاو سوف نينا بو امون كين نكو في ديدي باي دينا في باي نين ديم ديف صلى الله تعالى عليه وسلم نينا دي اي بالي فيت لا يدول موي موك كو بن جيمول تاي فاو مو الك kon xamal ne dee mi ngi lay rëbb te faw mu ne la niib te lu ko gën a metti amul lu ko gën a tiis amul lu ko gën a naqari amul dina la teqaleeg ñi nga gën a bëgg ak li nga gën a bëgg daa fanaan ci néeg bu yaatu te féex lool tey ngay fanaan ci pax moo xëjul daanaka daa tëdd ci lal bu nooy tey ngay tëdd ci suuf duñ la lay taayal dara daa sàngoo mbàjj mu nooy tey ngay sàngoo suuf gegenoo donj suuf du soxna du doom du xarit kenn du la nangoo wettali te la nga nekkee duñ ci xam dara sa alal séddoo nañ ko te lu ñu ca def dina la fekk fa nga tëdd boole ca la nga ca amoon ci amin wu lewut sa njaboot tasaaroo na say soxna denceef na leen te bàmmeel xat na tàng na tëraay ba yàgg na lu mat a bàyyi xel bokk yi moo tax al imam alshafii radiallahu anhu wax ne anqalu yi man taraka dunya qabla an tatrukahu wa anaara qabrahu qabla an yaskunahu wa arda rabbahu qabla an yalqaahu mu ne ki gën a am xel ci nit ñi mooy ki wan adduna gannaaw bala mu ko wor ndax adduna kon rekk la mu ne ki gën a am xel ci nit ñi mooy kiy jëf lu baax di jiital ca bàmmeelam ndax kenn ku ne sa jëf rekk lay wettali ci sa bàmmeel nee na ki gën a am xel ci nit ñi mooy kiy gërëmloo boroomam bala moo dajeek moom ca bés penc ba ndax kon dina mucc ca tartar ya ak mettit ya ak tiis ya yi kon ana lu fi jar yenn yi serigne bi neena na darray àdduna jërul bañante darray àdduna jërul añaanante darray àdduna jërul noonoo darray aduna jeerul xiro ko ŋaayoo darray aduna jeerul yakante der aduna jeerul lorante darray aduna jeerul rayante banexu temiri aduna ci aduna jeerul mbugalum sen sa ci alakhirah bokki serigne bi neena mi ngi denk bopam te di len denk yeen tamit kon ne nanu gëna a góor lu bu baax ci jaamu yàlla ta xamne jaamu yàlla waccut kenn ndax ñak ko def amutu lay nanu fonku julli jurom ta bañ leena a di wor wëru koor di nat azaka ci ko alal mate aj màkka ci kum jàppandi te lépp nu dëppale ko sunnas Mustafa sallallahu taala alayhi wa sallam te samonté ak haq yi dox suñu digënde sëriñ bi nee nak haq yoy yi ci lay insister tay mom lay fedd li bu baaxa ba ndax ndax samonté ak haq yi day waral fitnay tey ak mbugalum ëllëg yowmal xiyam mu ne foo gis aw ay ci àdduna am na ñu joxul seen àq wala ñu jéggi seen yos nee na looloo koy waral xaq yi dox sa digg ak sa borom mën nga koo tuub tuub gu sell sa borom jéggal la ko waaye xaq yi dox sa digg ak sa moromum jaam jaam bi rek jaam bi rek la ko mën a jéggal te bu la ko jéggalu tey fii ci àdduna noo mën a def da ko ko fay ëllëg yowmal xiyam ëllëg ca bés penc ba di nga gis kuy fayee jëfam yu baax yi mu jëfoon ba deseetul dara lu koy dugal àjjana moo tax sallallahu taala alayhi wa sallam wax ne bu yowmal qiyaamee di nga gis waaju naan sunu borom sama mbokk mi na ma fay xàq yi ma yoreel sunu borom ne ko waaye moom deseetul dara lu rafet lu mu la fayee waa ji ne ko kon jëlal ci sama ñaawteef yi yan ko ko sallallahu taala alayhi wa sallam bi mu waxee lii rekk dafa jooy daal di ne inda dalika la yowmun azim bés boobu bés bu màgg la nit dina ca bëgg yenn moroomam ay bakkaaram ngir bëgg a ngir bëgg a mucc te ñu buggal moroom ja mooy di subhanahu wa taala wax ba tey ci xaq yawma yafirru almaru min axihi wa ummihi wa abihi wa saaxibatihi wa banihi li kulli imriin minhum yawma idin sha'nun yugnihi mag rak ndey baay jabar doom ku ci gis sa moroom ndaw ndax rek jàpp ne yoreel nga ko xaq joo xam ne faw mu fayee la ko tey jii li doom di neex neex waajur dina taxaw poñe doomam ne sunu borom na ma fay xaq yi ma yore li waajur di foor foor doom dina taxaw poñe baayam wala ndeyam ne sunu boroom na ma fay xaq yi ma yore ndax kenn ku ne noo muccee rek ngay tay ngay tal te kenn ku ne sa mbiri bopp dina doy ba doo xam noo koy lijjantee te lu la nit jege jege ak nu cofeelam ci yow toll du ne la mukk wàññil say bàkkaar jox ma ma gàddu la ko ndax bu la mënoon yenn yosam sax def ko mooy li subhanahu wa taala يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه نيانبو يوم القيامة إنك كسواجو خمنا بنكوون كاي ني دوغال سا دوم سا وارا سا جابار سا بوك با ساخ دوغال تي ني نيك تي كاو سوف نيب تا نا موتي مون ايتيا نداخ ريك بيغا موتي تي مبوغلوم يوم القيامة كون بوكو مي سيرين بي نينا نغا باي خيل حق يي دوخ سا ديغك سا دكاندو تي كير بي تي كارتي بي تي دك بي mu ne bul doxe sañ-sañ bul doxe doole bul doxe màttay bul topp sa bëgg ba di ko xañ bëggam aw nit bu ñu bokkee mbir nag la ñu cay def xàq la ci ñoom ñépp ci ñu war caa diisoo yow mi liggéeylu muy employeur bi xàq la ci yow ci nga jox ki ngay liggéeyoo ki ngay liggéeyloo payooram balaa aw ñaqama fendi yow mi ñuy liggéeyloo muy employé bi xàq la ci yow ci nga matale engagement yi nga jël yow commerçant bi xàq la ci yow ci nga matale xàq la ci yow ci nga bañ a naxaate wala wuruj wala dugal genn njumlañ ci li ngay jaay ngir loo lekk ci riba lu mu tuuti tuuti sallallahu taala alayhi wa sallam nee na deeful nangu sag jaamu yàlla ñeent fukki guddi yow safoor bi tey def transport xàq la ci yow ci nga sàmmonteeg li la code de la route wax ay bakkan nga yor te bakkan dafa foor ci yàlla ndax nee na man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasadin fi l ard fa ka annama qatala annaasa jamian benn bakkan rek nga xañ ko dundam te tëroo ko fenn wala ci ak ji ak yàq ci kaw suuf mu ngi mel ni nga faagaagal doomu aadama yépp kon war nga ànd ku yar ak dal ak teey ba àgg fa nga jëm ak jàmm te bañ a xaj sa moroom xàqam ci kaw yoon wi yow waajur wi sallallahu taala alayhi wa sallam nee na doom dina layoog bàyyi ci tur wu neexu du mu ko tuddee yow man xiyaam kon xalaatal sa diggante ak moom boo sàgganee ba xamul dara ci alquranul karim xalaatal sa diggante ak moom boo sàgganee ba xamul diineem xalaatal sa diggante ak moom xalaatal sa diggante ak moom boo sàgganee ba yoroo ko yoroo lislaam xalaatal sa diggante ak moom boo sàgganee ba jikko yu ñaaw yi ak melokaan yu bon yi xew ci jamono ji fëkk ko muy xàq yu rëy yoo war a batale yow góor gi yàlla dénk soxna sëriñ bi nee na na nga xam ne xàq la ci yow ci nga dëkkal ko dëkkoo ko dundal ko wodd ko yërëm ko wormaal ko yiir ko suturaal ko di ko digal jaamu yàlla te di ko ci saytu yow soxna ci serigne bi neena nga xamne haqqal xàq borom keur gis na lool sallallahu taala alayhi wasallam neena bu sa yaram borom keur feesoon del la ki gom fu ne di xel di dëtt mu digel la nga mar ko ba mu set ngeen dal ma ci waxin bi du tax nga dab haqqam kon soxna ci haqq la ci yow ci nga warmal sa borom keur jox ko cër bu mat seuk di déglu ndigalam di moytu terem di dabu banexam ci li neex yàlla تصلى الله تعالى عليه وسلم نينا بولا na bu la sa borom kër gërëmut yàlla du la gërëm kon bul xalaat mukk yàlla bi ci yow lu dul ne da ngaa sax ci bégal sa بي kër ci li neex لي yow imaam ji sëriñ bi تي na mi ngi lay دي ne xàq la ci yow ci ngay ndax yow la julli ji jital tek la fi sen kanam kon del digle di tere di arto ta yàlla rek tax yow mi nga xamne aw nit dañu la yaakaar جوخ لا سين بوب غاي سينوب سيرين دي سين كليفا سيرين بي نينا مي لاي فاتل ني حق لا تي ياو تيغا تيغ لين تي صراط المستقيم دي لين وون دغ دي لين جوخ يالا دي لين خيرتال تي يالا وقت وني تا بن دينا خيرتال تي سا بوب تا بول خيبل سا بوب موكو ولا يبل سا بوب موكو تي خيتوي دراجي ادنا اك علالي ادنا طالب بي نك بوكو سيرين يم غني بغ ادنا اك علالي ادنا داف كوي جاخال لول yéen ñi ñu dénk suñu mbiri àdduna la dale ci président de la république ba ci chef de quartier bi sëriñ bi nee mi ngi leen di dollee dénk te di leen bàyyiloo xel ne waxtu wu nekk dañ leen a di leen bàyyiloo xel waxtu wu nekk ne dañ leen a wóolu doyloo leen jiital leen ci suñu mbiri àdduna xàq la kon ci yéen ñëpp. ci ngeen bañ a tas yaakaar ji taxoon ñu dénk leen ndénkaan nag lu for la jiite tamit lu metti la la ñu la dénk xàq la ci yow ci ngay sàmmonteeg waxtu wu ne la tax ñu dénk la ko di ci dox di ci wax sa yëngu bépp nga jëmale ko ci njariñal ñëpp yow mi jiite bëggal nit ñi njariñ na la jaral ñëpp am nga ñàkk ñëpp suur nga xiif ñëpp mandi nga mar ñëpp wodd nga rafle ñëpp nekk ci nooflaay ngay doj doñi guddeeg bëccëg ngir lu leen di jariñ ci biir tomb boobu sëriñ bi nee mi ngi ciy dénkaale ñëpp ñiy yëngu ci wàllu politique ci suñ réew mi ñu jàmmoo di waxtaan di diisoo ci liy jëmale kanam réew mi segam yittee réew mi rekk leen tax di yëngu développement nag jàmm rekk la mën a lay tayoo bu jàmm amul dara du séqib jéego jëm ca kanam mbokk mi sëriñ bi nee na na nga xam ne sunu environnement bi tamit dafa am xàq juñ war a matale muy li nu wër lépp te nuy dund ci biiram ñu di ko woowee la nature rabbana ma xalaqta hada batila yàlla sakkantuwut foowantuwut lu mu bind lu ne am na lu tax kon xàq la ci ñu sàmm gàncax gi garab yi foore yi rabi àll yi jur gi suuf si ndox yi lu nu ci faagaagal lu ne rek dina feeñ ci sunu dund ndax dafa am lu ñuy wooye interdépendance ci sunu biir lenn lu ne dafa am ci moromam mu mu aju mooy waral li ñuy wooye équilibre de la nature dara du ëpp dara du yées yàlla lenn lu ne na mu war a mel ak na mu war a toll la ko sàkkee kon nanuy sàmmoonteeg loolu te di ko bàyyi xel ngir jafe-jafe bañ a am sëriñ bi nee na kon bu ñu sàmmoonteeg xàq yi ku ne ñu jox ko la mu moom te kenn bañ a jéggi yosam jàmm lañuy am tey jàmm la ñuy am ëllëg gannaaw loolu bokk yi sëriñ bi nee na mi ngi fàttali ne société boo gis bu ne ci ay ndawam la gàll yaakaaram ëllëg ndax mag ñi lu ñu xam-xam lu ñu man man dañuy tële bés wala ñu wéy kuy wuutoo nag ku ñu war a waajal la ab société nag bu yàqoo ndaw ñi la ñu waajalul woon nit ki nag lay yaakaaram ëllëg war na koo fonk sàmm ko laq ko fu yàq ëggul sunu yaakaar jii nag di ndaw ñi fonk leen du lu ñu bëgg nga def ko lu ñu nam nga won leen lu ñu laaj nga jox leen di leen kof kofal bàyyi leen ci li leen neex déedéet xale xamul lu koy jariñ lu ko neex rek la xam boo ko bañee xañ li ko neex ngir bañ mu jooy bañ koo won li koy jariñ ngir bañ koo sonal xamal ne jooyi tayam moo gën fopp jooyi ëllëgam coonab tayam moo gën fopp coonab ëllëgam te lu mu jooy ëllëg yowmal xiyaam di nga jooy lu ko lu mu sonn ëllëg yow xiyaam di dinga sonn lu ko raw ndax li ko dal yaay responsable muy xàq joo xam ne dina ko layoog yow te dina la yey waaye bu ñu tabaxee ndaw ñi ba ñu dëgër société bi du daanu mukk ndax tege na ci fondement bu wóor ndaw ñi nag mënee leen a tabax ci lu dul xam-xam ak i teggin kon faaw ñu leen ngir ñu xam-xam faw ñu yar leen ngir ñu am ngir ñu ami teggin te li jiitu ci doomu jullit bi war koo xam mooy alquranul karim ak ashariatul islamiyya ndax mooy tax mu xam li ko yàlla digal ba di ko jëfe ak li ko yàlla tere ba di ko moytu ci lay xamee li ko war digganteem ak borom ak li ko war digganteem ak moroomum jàmmam ñu yar ko yarul islam def ci moom ay teggin yu mat sëkk ba fu mu gisee ku ko mag warmaal ko fu mu gisee ku mu mag yërëm ko fu mu gisee ku mu maaseel def ko ne boppam ni ko Serigne Touba wax ci Nahju Qadaa'il Haaj waaye li xew ci sunu jamono ji bu nu sàgganee fam nuy jëme kenn xamu ko lu sa doom gën a nuru tubaab gën a la seen cosaan sax bëggatu leen cee xam dara ku ngeen gis jàpp ne dafa tardé nga def ci moom jikkoy nasaraan bi topp ko ci bànnee xam yenn film yi ak émission yi di ko góndi internet bi di yàq jikkoom portable yi jàpp ndalal ko ak mbon da ngay gis xale bu toll ci sàkku xam-xam ñu di ko won wutiilu xaalis di ko liggéeyloo bu ëllëgee du xam luy riba du xam lu lew ndax luñ ko woon diineem du warmaal kenn ndax yaruñu ko da ngay gis ñoo xam ne dañuy mel ni ñuy jariñ xale yi fekk dañu leen di jariñoo di leen xemmeemloo pom yi ak caaxaan yi di yàq seen i jikko di wut ci ñoom alal dara yitteelu leen lu du am am ba seen yoon nekkul ca sariya léegi dangay gis sax ñuy dugal diine ci pom yi ngir naxe ko waajur yi waaye dëgg ki caaxaan mës ta mën a ànd te duñ mas a mën a ànd ba faaw da gis xale boo xam ne ci melokaan woo xam ne da nga naan bàyyiwul kilifa këram wala nga gis xale buy taxawaalu bu amul yenn mébét ëllëg ci boppam lii lépp nag càgganteeg waajur yi rek la ak kilifa yi waajur yi ñu ci bari xamuñu seen diine na mu ware moo tax xamuñu nu ñuy tege seen doom ci yoon kilifa yi tamit ñi ci ëpp adduna not na leen wàcc nañ seenu ànd jàngaleetuñ yareetuñ royukaay di gën a néew wegeel di raaf ndànk-ndànk sëriñ bi nee na kon nanu yokkaat taxawaay bi ci njaboot gi gën a góor góorlu ci saytu bi yéen ndaw ñi tamit sëriñ bi nee na mi ngi leen di dénk yéen ñëpp ngeen xam ne ëllëg yi réew mi ci seeni loxo la ko yàlla di teg nu ngeen mel rek ni la réew mi di mel ëllëg kon faw ngeen am xam-xam ngir kenn bañ leen a nax faw ngeen amub yar ngir kenn bañ leen a def loo ab sofaan yéenay sunu yaakaar ci ëllëgi société bi yéenay sunu yaakaar ci ëllëgi réew mi fii la am lu mën a xew noo ngi fi te duñu ko génn kon kenn ku ne ci yéen na xam ne am na aw waar bu mu war a bay ci jàmmi réew mi ëllëg ak jëm kanamu réew mi sëriñ bi nee na looloo tax mu di leen soññ ak a ñaax ci ngeen gën a góorlu bu baax ci sàkku xam-xam te ngeen am ci yéenay jariñ bindeef yi xam-xam mooy lamp bi lay leeralal fi ngay jaar dina tax nga xam fi ngay teg sa tànk ku xamul mënta wamat kenn mënta jaarale kenn ci yoon xam-xam dina tax nga xam li lay jariñ ak li lay lor xam-xam dina tax nga xam li nga bëgg noo cay jote li nga ragal noo koy moytoo ak noo koy fegoo na kenn ku ne ci yéen jàpp ne dafa am wàll ci réew mi kenn gënu ko cee sañ bu réew mi jegee moom la jagal bu réew mi yàqoo moom la yàqul te kenn ku ne weesala boppam jëf ngir intérêt boppam kese waaye na def yitteem jëpp ci jariñ réew mi ëllëg kenn ku ne ci yéen jàpp ne kay jagal réew mi ëllëg moom lay doon te jóg def ko yitteem kenn ku ne ci yéen jàpp ne kay baaxal société bi ëllëg moom moom day doon te jóg def ko yitteem jóg gi nag fii ngeen toll rek la te toll leen ci lu dul sàkku xam-xam laneen lu ngeen def da leen di tardel xam-xam da lay jubal da lay noppal ñàkk a xam da lay réeral da lay sonal te ngeen moytu di ànd ak riirum jamono ji ku xew ngeen roy ko lu xew ngeen def ko am nasaraan ci boppam bu ñuy wax Molière moo wax ne quand sur quelqu'un on prétend se régler c'est dans le bon sens qu'il lui faut ressembler mu ne bu fekkee da ngaa jël nit ki def ko royukaay na ngay roy la baax ca moom kon gàcce la ci doomi jullit bi ci def lu yées waxi nasaraan bi bu deful lu ko gën gannaaw loolu bokk yi sëriñ bi nee na mi ngi leen di dénk te di leen ci soññ ci loo xam ne sunu njariñal tey la ëllëg ak ëllëg loo xam ne dina tax sunu borom sotti yërmandeem sunu kaw loo xam ne dina tax nu aar sàmm ba am noon du nu ñeme loo xam ne dina nu kattanal ba lu nu song daan ko loo xam ne lu nu jublu yàlla dimbali ñu ca lu ñu ñaan yàlla nangul na ko lu nu sakku yàlla jàpp ndalanu ko sëriñ bi nee na nag loolu mooy benn la sunu bopp gi ñu doon waxtaane démb ba tey benn la suñu bopp ba doon wenn say bañ a xajal seytaane sunu diggante bañ a xajjali koo mukk te bennoo nee na day ndigalal suñu borom subhanahu wa taala lu mu jox mbooleem jullit yi واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نينا نو بوك يالا مينو گم بوك يونتي بي صلى الله تعالى عليه وسلم بوك دين الاسلام تا كين مونتا بوك يو گن يي لنين لولا مانا بوليك نيت با تخ گين دي and يو يي ني بوك كو گن فوب te duñu jariñu ci yàlla mukk wala yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam wala lislaam ci teqalikoo ak xiiroo ko ŋaayoo subhanahu wa taala neen innama almuminuuna ixwa nun jullit yépp ay bokk lañ te ay bokk ànd ca gën ay bokk jàmmoo ca gën ay bokk yërëmante ca gën muhammadun rasulullahi walladina maahu ashiddaau ala alkufar ruhamaau baynahum te sallallahu taala alayhi wa sallam nee nañu لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يحجر اخاه فوق ثلاث نانو دون اي جام يلا دون اي بوك يو خامني دونيو ميرو موك دونيو انيانت موك دوني وننت غيناو موك دونيو دوغو موك تا نينا يلو تي اب جولديت موي تونغو مروم جوليتام لو اوب نياتي فان بوروم غيري دي المذاهب الاربعه الامام مالك الشافعي Abu Hanifa ibnu Hanbal radiyallahu anhu wa nafaana bi barakatihim seen dund gépp dañ koo joxoon xam-xam di ay jaamukat yàlla yu wér seenum njàngale lépp balle ci alquran ak sunna Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ku ci mën a topp kenn ci ñii ngërëmal yàlla ngay diir ngërëmal sallallahu taala wa sallam ngay diir ñu sos tarixa yi tamit ku ci mel ne al cheikh Abdul Qadir al Jilani al cheikh Abul Hasan al Chadali الشيخ أحمد التيجاني الشيخ أحمد بامبا خادم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم رضي الله عنهم ونفعنا ببركاتهم ñoom ñëpp seen dund gépp ci jàngale gindee teg nit ñi ci siraatal mustaqim lañ ko jeexal sëkkantuwuñ fawantuwuñ yoon wuñ ñu tëralal rek noonu la ndax seen lépp alquran la ak sunna Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu feesoon del la xam-xam amoon ay maqaamaat yu kawe lool fa yàlla du ñu def lu dul ndigalal yàlla kon ku leen topp yàlla ngay diir akub yónnenteem sallallahu alayhi wa sallam kon bokk yi sëriñ bi nee na ñun ñëpp ñoo bokk jublu muy yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bokk yi kon sëriñ bi nee na bu ñu ñàkk bokk ngir tee bu ñu ñàkk bokk tariqa tee benn bu ñu ñàkk bokk xalaat tee benn bu kenn ne li ma nekkay dëgg sama moroom juum na yàlla dafa yaatu taxabatu juum xarala ba ay sew sew naqaree xam lool te lu ne mu doxañ ko ci jaamam kon lu ñu ump lu ne nañu ca maandu bokki jullit yi bokki taalibe yi sëriñ bi nee na kon nanu bëggante soppante wóolante yéenante jàmm tey bañ a añaanante kenn ku ne bëggal moroomam li mu bëggal boppam joxante cër warmaalante kenn bañ a xeet kenn kenn ku ne la moroomam am mu yéene ko ko te xam ne yàlla la soob mu may ko ko dogalub yàlla nag la la cay noppal mooy mu neex la te nga ànd ja nanuy yërëmante di suturaalante di nëbbalante suñuy sikk ku sikkitee ànd ak nit doo ànd ak kenn ndax koo xool ci moom sikk gis ko te bala ngaa wax sikku jàmbur na nga xalaat ne am nga sikk te nii ñi am nañu làmmiñ te nuy demlante di dimbalante ci sunuy wërsëg di laabirante ci sunu xam-xam ak sunuy xalaat di yëkkateendoo di tegandoo te kenn ku ne kamu doy loo def ko jëwriñam ci toolu lislaam bii mu di sëriñam ñu wegle ko ko fonkle ko ko nit ki ka muy sagoo bu ko ko xeebal nit ki la muy sagoo bu ko ko doyadal lii rekk nag moo doo lenn la ci jublu sëriñ Cheikh ci daayira amoon nag yéene mu daj jullit yëpp sëriñ bi nee na nan fonk tamit liggéey bu baax a baax am yitte faj ko te yoonu kenn nekku ca dara la dàq ko te liggéeyu koy may liggéey dina tax nga sàmm sa ngor dina tax nga sàmm sa diine doo sanal kenn ci laaj kenn du la yeb ci fajal la sa aajo te liggéey mooy jëmale kanam am réew jaamu yàlla mooy jagal këru ëllëg waaye liggéey mooy jagal këru tey sëriñ bi nee na tamit mu ngi leen di dénk nu jox cër sunu dëkkandoo yi ñu bokkalu diine te war man leen tey maslaak ñoom ndax ñoo bokk réew mi te mënuñu ko séddoo te kenn mënut a bàyyee moromam ay jaami yàlla lañ te jaam bi wërta xeeb moromam wërta doyadal moromam nee Seydina Jibril alayhi salaam suñ borom da ko mas a yónni àdduna ne ko demal nga seet fa loo xam ne yaa ko gën nga andil ma ko bi Seydina Jibril ñëwee wër ba sonn gisul lu dul ab xaj bu métti mu bàyyi ko dem dellu ca boromam suñu borom ne ko loo andi mu ne ko gisuma fa dara loo xam ne maa ko gën a suñu borom ne ko demal bi mu ñëwaatee mu defaat noonu wër ba sonn rombaat xaj ba dem ba di ko jël bàyyi ko ba mu delloo ci borom suñu borom ne ko ana loo andi mu ne ko gisuma fa loo xam ne maa ko gënal ab xaj bu médd daal laa romboon di ko waaj jël ma xalaat ne gënuma ko ma bàyyi ko suñu borom ne ko boo jàppoon ne yaa ko gën ba andi ko fii fi man danaa far sa tur ci diiwaani malaayka yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa